ñu ngi gërëm CDC parce que bi fi ñëwee euh, dalal nañu ni ñuy dalale candidat yëpp amul benn beral loxo amul benn xaj ak seen recevoir nañu ñu def formalité yi ñu delloo ñu cutis bi nga xam ni mooy mandargaal ni wàccoo nañu ak charte bi nga xam ni loi bi daf ko teg ci képp koo xam ne da nga bëgg nekk candidat jiit réew mi li ci des mooy wane suñu pas-pas ak suñu taxawaay ak suñu yéene parce que li tax gunge bi mel nii waa Benno Bokk Yaakaar dañu wax nii fu ñu taxawati dinañu wane pas-pas bi ñam ci ginnaaw candidat bi gannaaw ndogal li génne ci seen kuréelu leader mais Amadou baa mooy sunu candidat lañu ko yéene mooy mu nekk le cinquième président de la République du Sénégal. déposé nañu suñu caution altine ñu dem déposé suñu parrainage liggéey nañ ko ni ko war a liggéeyee parce que dañoo yaakaar ni Sénégal si mu toll toll ci benn tournant décisif pour son futur. la responsabilité individuelle le patriotisme et la citoyenneté ñoo tax docteur Serigne Gueye Diop takku nekk candidat pour delloo Sénégal li ko Sénégal defal ak li ñu Sénégal defal ñun ñëpp. la coalition Jean-Baptiste Diouf sama camarade yi ma àndal dañu ñëwoon pour fësal suñu maanaam suñu engagement aux côtés euh, du président pour que jour élection yi le vingt cinq ñu mën a gagner. Euh, su soobee yàlla en tout cas loolu mooy suñu loolu mooy suñu mbébét waaw maa ngi maa ngi fi profité tamit di remercier di waaw di jël delloo njukkeel euh, sénégalais yi nekk fii si diaspora bi ak ñi nekk fii ñi nga xam ne jàppale nañu si parrainage yi